jaar tey nag euh, ñu fas yéene waxtaanee lamb ji nga xamante ni moom moo war a am diggante Siteu ak euh, Modou mi nga xamante ni moom moo dëkk fii parcelle am ah, ñu ñoo joor nag fas yéene waxtaan ak gaay yi fekk fii sëñ bi maa lay jaar noo tudd. Pape Ndiaye ah. Pape Ndiaye waaw. Ah. naa yow supporter Modou Lo nga wala Siteu. non supporter Modou Lo la Modou Lo lañ topp. Ah dafa soxal de. ah day xaar wax rek la ci am quoi mooy loolu. mais nan nga gisee combat combat bi Modou day dem daan ko rek yaa gën a xam quoi. jàpp ngeen dina yombee noonu. non day la mbër la. yàgg naa am bis bis boobu gën a rëy bi ah Siteu du mbër Siteu jaaxalul ñu. lu tax nga ne Siteu du mbër. barke borom daaru lamañ bee rëy day wax rek. Ah. bër na boobu wax ji rek la ci am. mais Siteu doomu janwaar bi nga xamante ne nii su jógee jàmm ngeen yëpp topp si ginnaawam mbooloo bi xam ne gis nga gis nga euh, dem na fi états dem na fépp gis nga forme bu indi tey si làmb ji. yaa ngi dégg xam nga ne am na ay conseils yu baax yu ko mën a dimbale digganteem ak Modou Lo pour mu mun koo daan nga yow nga ñëw nga ne Siteu du mbër ak palmarès bu def si làmb ba yegg si fii tey ba war a bëre roi des arènes. mais Siteu jox ko gën a baax palmarès Siteu jaaxalul ñu loolu mel na ni géej gi am na ndox rek Modou moo man Siteu moo ko ëpp doole moo ko dàq bëree moo ko dàq waaw ñun kooku tiituñ ko quoi xam nga ñun bis bu nekk bi bëree nañ ko quoi bis boobu jaaxalul ñu ak nu mënta demee rek ñun ñoo ko man quoi xam nga voilà mais euh, gis nañu euh, Modou Lo euh, moom ak Boy kii ni kii Ama Baldé ñëw ak Boy Niang jëlaat Siteu su daanee Siteu fan la ko mën a yóbbu wala Siteu bu ko bu daanee Modou ñoom ñaar ku nekk lamb ji ban impact lay am si yow. non bu daanee Siteu mën na ko yóbbu fenn parce que Modou Lo yàgg na fi a yàgg ci lamb Modou am na li mu am ci lamb mais Siteu xanaa Siteu la ñuy wax rek mais Siteu mënul daan Modou Lo loolu du loolu du question pour man quoi pour Siteu daan Modou Lo Siteu liggéey lu mën a daan Siteu xam ban mbër la fi daan mbër boo xamante nii moo loolu Siteu daanul fi benn mbër bu garaaw fii si làmb ji te Modou champion la yàgg na am bis bu neexee yàlla incha rabbi suba lépp lay leer waaw lan ngay conseil Modou waaw ah, Modou moom mënuma ko conseil quoi c'est que magu boppam la yàgg na bëree moo loolu moo loolu day respecté na respecté bis bi rek xam ne waa parcelle yëpp ñun ñëpp moom lañ àndal ah. moom rek la ñuy topp ñu keneen Modou loo seul kese gis nañ ñu waxee làmb violence la si bëri euh, tey soo jógee jàmm Siteu bu jógee jàmm ngeen di dem làmb jo gis nga violence buy am si yoon bi agression bi sumool beeg yëpp Modou tamit kazalika lan ngay wax su loolu noonu. ah mais samay samay waa koñ laay waxal sama waa dëkk waay waa parcelle. maa leen di ñaan gars yi xoolal dañ sango ba set sañse lu mol dem stade xoolal lamb ji moo loo daan ko ñu ànd ak moom ñib si waat parcelle feete ndam li loolu kese la amul lenn amul xeex amul xuloo waaw sama gars yi waaw ñu jaar weer sabi si jaam bu baax nan wax ci ak Modou Lo waaw ñun moom Modou rek la ñuy topp amul keneen Siteu dama koy wax na ko moom amul amul bëre boo xamante ni mun na daan Modou Lo waaw bu dee xeex la su ñëwee fi la koy fekk bu dee làmb la bu ñëwee fi la koy fekk. waaw ñun moom Modou rek. mais mais mais Siteu moo loolu yëpp ay kii la rek. day dóor ay supporters am nii saare yaara rek yaa ma gën a xam mais dara. te Siteu bi yoon dafa indi na ay jàppale ci làmb loolu yëpp tiitaluñ ñu waaw ñun xarañ loo rek. waaw Modou bu ko téye dina xam ne moom du fukki dërëm. day soob nii rek di xaañu nii yaa ma gën a xam. mais jàpp nañu te loolu moom yaakaar naa du ma ko mën a jàpp xanaa bu suur ba rek te bu amee moom xam naa lu ma bett lay doon mais boo déggee ñu naan kombi laam mun la daf ko bëgg a may mu daan ko daf ko bëgg a jox roi des arènes lan ngay wax ah, loolu moom gars yi kenn ku si nekk benn affaire bu amee kenn ku si nekk da ngay wax say wax rek man moom loolu laa ko jàppee rek mais làmb la rek ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ làmb war na ne leen mën a boole loolu kese la quoi man loolu laa ko jàppee ay waxu kason kason la rek lan ngay wax lan ngay wax Modou pour diggante mag adversaire am parce que ñëpp moom lañ jox favori yaa ngi dégg loolu jàpp na est-ce que mënuñ ko naagloo ba mu dem ba Siteu am ci moom dara wala genre yooyu lan nga koy wax daal. waaw li ma moom mooy ko comme liñ ko doon loo ci beneen combat rek combat yi fi passé rek fulla ak fayda rek te xam ne dafa am ñu topp ci ginnaawam am luñ koy am luñ koy xaaree quoi waaw fulla ak fayda yaa ma gën a xam defal ñu lu waaw lu neex ah. <laughs> bi am ci làmb ji noo parce que buñ bëri di dem ku nekk waa jàmm Siteu bu génnee di dem wala moo loo jógee fii di parcelle gis nga agression bi nu muy nu muy taree si si yoon waaw di wax booy fair play rek xam ne lii sport la rek ñun ñoom ñoo ko bokk waaw lamb la rek day jeex après ñun ñoom ñooy àndaat ñu ne waa Diamaguène yëpp benn la parcelle ak Diamaguène yëpp benn la te ñun booy yëpp mooy loolu yaa ma gën a xam ñun ñëpp ay doomu Sénégal la mais sport la si biir Sénégal waaw fair play rek. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ngi sant bu baax maa ngi a tey ñu fekk la fi marché Dior ah, euh, di def nag li nga xamante ne nii mooy reportage fas yéene waxtaane ci làmb ji ñu dégg noonu suba muy waa jàmbaar production dégg diggante Modou Lo ak Siteu gisee làmb jooju maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp làmb ji neex lay doon nag waaw làmb ji moom làmb neex lay doon waaw man Modou nag mooy sama sama sama mbër moom ah incha allah waaw incha allah da koy daan fu mu jaaraloon fu mu jaaraloon moromam yi la koy jaarale rek waaw fu mu jaaral leen moromam la koy jaarale rek. est-ce yooyu bokk na. moom Modou Lo moo leen dàq bëree bëree Modou Lo dëgg ñëwagul si làmb ji. làmb def yëpp waaw Modou lu ma gis Modou Lo mu ma gis ak Modou Lo mu ma xam booy yi ko cee daan. booy ko ci daan loolu wax. waaw dama xam dama xam qualité Modou boo xamee mbër xam qualité xam ne Modou Lo qualité yi ñu am xam booy ko ci am déedéet loolu bokkul. dégg nañ si benn mbër mu joxe benn misaal mel ni ne Modou Lo boo xoolee combat yu mu def yëpp da lay dóor taxaw pour boo ko duggee mu am nu am lu la def muy muy muy muy rëg-rëg loolu point fort am la mu nee na mu di maanaam di jox conseil mel ni koy jox conseil kii di Siteu lan ngay wax. Modou Lo noo ñëwee rek mu ñëw mu ñëwee benn ñëwee rek ma ne noonu Modou Lo yorul benn bëree gor bi boo ñëwee mën na loolu bu ngeen jàppanteem noonu waaw buy dóor buy xeex mooy man booy buñ jàppante moo leen man si bëree qualité bëree qualité bëree bu ne si Modou Lo newut si booy yi ni ma gis si ñoom ñëpp nag qualité bu nekk si Modou Lo amul si booy yi ni ma gis si làmb amul ci amul. mais ñu jàpp gis na gis nañ euh, bi nga xam ne Modou Lo si boppam indi na ko si làmb yi doon dàq gàllaaj jékki-jékki takkatul gàllaaj mais combat bi est ce que jàpp na dina si takk gàllaaj. non nam daan ñëwee lay ñëwee incha allah Modou Lo moom ñu ñëwee combat yi passé nii incha allah bii noonu rek lay ñëwaatee incha allah boo ko seet la gàllaaj gi sax même ñu ko daan takk si Modou Lo lañ gisoon ba commencé di ko takk ndax commencement bu jàkk ka sa jamono ñoom Oussa ñoom jëm noonu parce que takk gàllaaj bu bëri amu doon benn sangoor nga daan takk ak kii Modou fi andoon takk gàllaaj bu bëree bëree bëri combat bu njëkk ñaareelam noonu gars yi commencé takk gàllaaj mu bàyyi gàllaaj gars yi doon commencé topp Modou Lo moom la gars yi di moom ga buy gàllaaj bu doon a gàllaaj rek lay yóbbu Modou Lo lu ma def dafa koo man bëree bi la man ba pare doo ko indi gàllaaj la man ba pare si bépp wàll bu sa sans gàllaaj ñi dajee nii rek moo man boo yëpp fuuf du seen loolu kay maa ko wax sëñ bi. waa am na lu ma dee si yow de sa sama waay la rek Modou Lo xawuma sax waaye sama waay la nag waaye sama rakk sëriñam la woon. waaw sama rakk man non sama rakk moo doon nag. ki wax Lamine Thioye moom moo moo sëriñam si moom waaye man nag moom ku Modou Lo xawuma sax. non waxuma dara yéen jokkoon si neewu fa instant bi sax moom mi ngi Europe am moom instant bi neewatu moom mi ngi Europe moom temps mbiru làmb sax nekkatu ci mu ngi ci leneen mu ngi Europe waaye moom sama rakk lool moom waaw lan ngay conseil Modou Lo ak Siteu Modou mu tey rek bañ a bañ a bañ a profité bañ maanaam yàkkamti victoire ba mu ëpp bu mu ko dal na tey rek ndax combat bi nu mu gën a yàggee avantage la pour moom. ci Modou Lo ci Modou Lo bi nu mu gën a yàggee avantage la pour moom moo tax bu mu yàkkamti na tey rek waaw. Siteu mënta andi luy jaaxal Modou Lo ta si Modou Lo lay xool. pour mën a euh, pour mën a pour mën a bëree waaye tout Siteu mooy andil Modou Lo dara surtout mënta andi Modou Lo mënta tegal Modou dara si mooloo Lo lay xool. moo tax lu ma ko xam ne mooy xelaal Modou Lo mooy na teey na teey rek bu mu yàkkamti ba mu ëpp ndax victoire bi yàgg yàgg si moom lay mujjee bu mu yàkkamti ba mu ëpp bu yàkkamti rek mën na ko ñàkk waaye bu mu yàkkamti na teey mais gis nañ poids bi nga xamante ne Modou Lo indi na ko jour open press bi gis nañ Modou Lo forme bu mu indi wute na sax forme bu mu indi woon digganteem ak Boy Niang ak kii gaa ñu jàpp nañu bëri Modou Lo dafa jàpp ne xale bi war na koo mënul dara moo moo demee noonu mbër da combat bi da ngaa wax yokk wëlin combat bi euh, bëree moo laaj loolu compétition moo laaj loolu sa adversaire ngay xool fekkee ah, te am na ay technicien ay technicien ñoo koy wax da ngaa yokk wëlin xam nag loolu moom commencé waaye ñoom moo xam lu tax mu yokk wëlin da ngaa loolu sa technicien yi ñoo la koy wax mooy sa encadrement ñooy gis nga xam lu tax ñuy def loolu ñu def looloo ko waaw waaye bëree rek moo loolu moo ci man booy yëpp loolu maa la koy wax tey moo ci man booy yëpp taxaw si làmb ji waaw moo lañ ci man violence bi nga xamante ne day am si làmb ji agression bi sumool bi surtout yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk si kaw tali bi di jaay euh, nan ngeen def booy loolu moom xaw nañu métti na loolu loolu bokk si làmb làmb làmb loolu taxu la pour nekk benn moo tax làmb jóg lii booyee ko ci xelew léegi rek waaw boo yoo xam ne liggéeyuñ defuñ dara bëgg trian bëgg sàccil moo leen si jublu waaye du la même sans lamb sax ñoom dañ koy def mi ngi léegi lay booy dañuy def benn def topp tali bi di jaar dañuy jaar fii di dajeeg nit ñi di takk këf li ñu yor loolu moo normal loolu sécurité moo si war a jóg loolu police moo si war a jóg loolu moom bokk si lamb ñoom ñoo ko ci dugal pour sàcc waaye bokk si làmb waaw loolu làmb loolu taxu ko jóg làmb pour booloo la pour nekk benn moo tax làmb jóg ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax incha allah merci jërëjëf maa leen gërëm bu baax a baax ok jërëjëf